boo duggee kii dafa créer page Facebook di wax ne Aïda Diallo la tudd soxna Aïda Diallo waa këram rekk a nekk ni ameem yëpp waa këram lañ moo tax lii gëm naa ne ñoom la ndax ameem yëpp boo duggee nii ci ameem yi lépp ay cantaakoon lañ kenn rëxu leen ku dul ñoom gis nga ko nii lépp ay cantaakoon lépp. boo génnee ni ñëw dafa partagé sama photo daal ne kii barkeb sëriñ Cheikh Aïda Saliou dinaa ko rey saaga bi mënuma cee yegg daal di laaj ko xam kii kan la mam yàgg mu bindaat daal ne envoyé nañ ma numéro ma commentaire ci ñeent commentaire yu gàtt commentaire yaa ngi nii lii laa ko bindal mbokk mi ci topp lii la ko commentaire ba ci sëñ bi bu mujj gis nga li mu ko wax boo amoon fit doo créer faux compte man gëw ma ne faux compte ndax amee yëpp ay cantaakon lañ kon ñoom la waaye defuma ko man dong gis nga kuñ naan ceddoo kuñ naan bëgg sëñ Saliou moom it la mu bind daa amoo saaga duma ci mën a yegg waaye gis nga dem na ba koy traité ab salafis ba wax ca mu ca wax boo ajoo ba tey ku ñuy wax sëriñ Abdou Lahad bu sa maram gis nga ko nii borom xam-xam bu ñëpp ràññeeku ci télévision yi muy défendre yoon wi mu ne ko xam nañ kilifa gi nekk sa ginnaaw sa à dire que jàpp nañ ne Abdou Lahad engagement bi mu jël ci défendre diine kilifa nekk ci ginnaaw moo tax muy défendre li muy défendre. daal di wax ne kilifa gi moo la wax ngir ngay saaga soxna Ayda waaye danañ la xam ne Ayda soxna Ayda du seen morom daal di ñaari numéro téléphone benn bi di numéro sëñ Abdou Lahad bu sa morom benn bi di benn numéro kilifa xëy na loolu yi mënuñ cee yegg. waaye boo gisee ñoom seen partage ak seen publication gis nga ko xam nga lii ñoom la xam nga lii ñoom la xam nga lii ñoom la xam nga lii ñoom la xam nga lii ñoom la xam nga lii ñoom la Facebook bi mu ngi ci bind soxna Aida Diallo boo bindee léegi mi ngi def photo boo xamante ni sëñ Béthio ci nekk mu nekk ceeg keneen ku sol ak musóor ko xonq danga koy gisal sa bopp identifié na lii doonut luñ leen sosal ndax man d'accord naa nit créer faux compte ñu mën a ah kii kat am na faux compte bu mu créé waaye boo duggee ci xaritu boppam li ñu daan amee da ngay def nii gis nga ko nii lépp ay cantaakoon la lépp lépp lépp lépp lépp kenn raxu leen mën ngaa bës fii tout gis nga ko nii kenn raxu leen kon donc bu fekkante ne ñoom jàpp nañ ne lii mooy seen arme di partager ko piblier ak di daggal nit ñi ay saaga man na bëtuma man sama page Facebook ak nii Cheikh Moustapha Al Jamil laa bind mi ngi nii. lii lépp maa ko publier maa ngi nii maa ko publier man benn Facebook la am lépp maa ko publier gis nga ko nii lépp samay wax maa publier lépp néegi ki sëñ bëgg Saliou moom it ak sañ ab Lahad bu sa maram ku ci nekk benn compte Facebook nga yor benn kenn amu ci ñaar ku ci nekk benn nga yor numéro bi ñu publier man sama numéro la maa ngi xaar appel nag dinaa leen may nag 48 heures bu fekkee publication yi ñu yore ñoom dindiwuñ ko noonu bu ñuy ñëw danañ publier liñ bëgg a publier ndax nañ bàyyi xel ne seen saal bañ doon gàmmoo bi dara ump ñi ci ñi ngi enregistrement yeeg audio yi lépp ak vidéo yi dara ump ñi ci mën nañoo partage léegi photo yeeg enregistrement yi nag première alerte la ñoo xam ne ñun ñii ñuy waxal duñ ay ragal duñ ay cuune doonu ñu ñoo xamante ne ay gone la ñoo xam ne dañuy taxawal wala ñu responsabilité wu dara ñuy naa ñuy nëx nëxal si xelu nit ñi lu ñuy wax dañ ci indi preuve bu leer nañ ay day jàll nekkul ci dëgg kenn mënu koo défendre ba lim nekk di dëgg bu ngeen demee ba seeni pexe gàntu nag ngeen jël ay saaga di ko traité nit ñi di yekk nit ñi ci Facebook di saaga nëbbutu ci réseaux sociaux yi di saaga jàpp ne réew mi dafa amu amul justice wala dara yéen a ngi ndax seen bopp. yéen a ngi yéen a ngi jaay marchandise moo xam nag bu jaree du baax ci yéen bu ma doonoon yéen da ngeen koy wante rek mu tàggoog seen i loxo ndax lii ngeen di woon nit ñi buñ leen ci wuy see ba ne bëcc ay def fii da ngeen ne bu démb doonoon tey duñ ko def ndax nu nëbbatu ma nëbbatu man benn page Facebook laa am. ñaari wat laa benn numéro bi orange la benn bi tigo la benn numéro la da ngay def 77 def 76 loolu lu ko gën a leer amul ku ma woo ma wuyu la ku ma envoyé message ma tontu la fa nag. mbokk yi li tax ma def nii mooy dama leen a bëgg a wan Saliou Samb ay pexeem ginnaaw bi mu ñëwee ci sëriñ taxa ba pare sëriñ bi giseek moom démb li ko sëriñ bi wax mooy na nga xam sa bopp na nga xam sa bopp na nga xam sa bopp yoonu murit. bu dee ku ngeen roy képp am na fi ba jox ko misaal ne ko na ngeen xool ci soxna May mi nga xam ne mooy fi mujj ci doomi sëñ Tuubaa yi waaye ñoom ban jugee liñ bëggoon mooy ci seen programme propagande gis nga Saliou Samb ñu def anniversaire sëñ Saliou Samb mu sëriñ Béthio gis nga bi mu ko publier ba pare enregistrement bi mu defaloon boppam nga xam ne téléphone am ci poosam la ko defoon di enregistré boo déggee waxi boppam moo gën a leer li sëñ Mountakha doon wax bi mu paree gis nga ñoom la ñuy commentaire nga xam ne lu ñu toggoon la préparé ko doo ko dem ci sëriñ bi gis nga commentaire yi commentaire yëpp dañoo ànd ak Saliou Samb ci li ko sëriñ bi wax te ñoom dégguñu dëgg dëgg dëgg li sëriñ bi wax léegi ñoom dañu dugg ci seen groupe WhatsApp interprété wax ji neneen ne leneen moo tax sëriñ bi wax ak ñoom nu bokkut ak ni nga xam ne noonu la nit ñi gisa waaye ñun ñëpp ñu maase xam ne sëriñ bi bi muy wax ak moom ci kaddu gu leer nañ ñi la waxee ak moom kenn jotliwu ko wax moom wax ju leer nañ bi Samb di waxit li mu wax leer ñetti baat la wax ne Aida ko ko yónni daal di wax ne li ci des sama waxi bopp la doo ko wax waxi boppam te bi mu waxee pare it sëñ bi la mu ko wax mooy xamal sa bopp xamal sa bopp xamal sa bopp baat boobu mu ko wax nag lu baree bari daa tënku ci biir gis nga gis nga commentaire gis nga ko nii gis nga ko de léegi ñoom nag lii la ñu bëggoon nga xam